asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ci ne sa tur ak sa sant yéen ñi baaxoo di seetaan Thiès 24 di fa taataan xibaar saa su nekk euh, muy xibaar bu mu mën ci doon tey nag ñu ngi dellu si wax xam ngeen ni jamono yi moom wax dëgg neex yàlla euh, euh, politique bi dafa nekk dafa nekk en vogue ci niñ ko mën a waxee ci gàttal maanaam si politique dafa nekk ci moment di waajal élection locale yi ba tax na saa su ne dañuy seet si les jeunes politiciens tey ñu ngi toog ak ki nga xamante ni moom moo nekk Aziz Diakhaté nekk euh, président euh, conseil de la jeunesse bu Jeune Est mu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moom mooy situation politique gu Jeune Est bi ak candidat yi nga xamante ni euh, bëri nañ ci macha allah ak naka la gisee li nga xamante ni moom mooy municipalité bi naka lay doxee boobaak léegi asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah ñu ma maa ngi sër maa ngi lay nuyu di la ziar à travers toi maa ngi nuyu waa Thiès 24 yëpp euh, di leen jox seen cër di leen jox seen wàccuwaay waay aussi di jël nuyoo bi di ko teg ci kilifa diine yi ne ci dëkk bi di ñaan yàlla yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay. juste un petit rectificatif rek Abdou Aziz Diakhaté responsable des jeunes euh, de la commune de Thiès-Est bu parti Rewmi kon ñoo ko déggandoo njuumte la <laughs> xëy na nañ ko rectifier ok Abdou Aziz euh, mën naa ne daanaka euh, liñ lay gis ci média yi bëriwul kan mooy Abdou Aziz. waaw waaw liñ may gis certes ci média yi bëriwul ndax euh, ñun liggéey lañ gën a mëne quoi mais Abdou Aziz Diakhaté moo nekk le responsable des jeunes bu parti Rewmi bu Thiès nekk ndaw loo xam ne mi ngi ci biir parti bi nag depuis ay jamono mais dynamisme ak pragmatisme am lépp daf ko jëmee ci liggéey waaw lépp daf ko jëmee ci liggéey daf ko jëmee ci gëm parti bi ak kilifa yi fi nekk ak tamit aussi ci discipline nu moo tax xaj na yu bari ñu ci dégg yu bari ñu ci di mais yàlla dogal na nag tey euh, bépp ndaw boo xam ne nii yaa ngi ci biir commune Thiès Est bokk ci parti réew mi tey mën naa ni sam maay sa interlocuteur ak parti bi ndax je le pat le responsable des jeunes de commune de Thiès Est pour ne pas dire le patron des pour pour la modestie quoi mm. waaw donc vraiment comme ni ma la ko waxee rek ñun dañu dañu gëm liggéey jàpp ni liggéey mooy may lu ne kon donc li ñu privilégié liggéey moom moo tax ñu gën a ne ci terrain bi ko bañ a nekk ci média yi. Euh, situation parti réew mi fii ci zone est bi naka la demee ak situation politique bi de manière général ndax gis nañ léegi réew mi ak euh, APR mburuk soow la. waaw mais situation parti réew mi moom alhamdulilah comme d'habitude comme situation parti yëpp. Euh, réew mi dafa nekk un grand parti nekk parti boo xam ne wax dëgg yàlla taxawaayam kenn dootu ko naatable ci biir commune Thiès Est mais aussi ci biir Thiès yëpp cependant nag wax dëgg yàlla yàlla dogal le président Idrissa jël initiative ànd ak euh, le président Macky Sall ci liggéey Sénégal ndax Idrissa ku ko xam ak ci luñ ko xamee mooy liggéey Sénégal d'ailleurs pour exemple rek. bi élection yi weesee te ñenn ñi doon xalaat lenn li dañu leen dañu leen ne brûler pas mon pays donc kon kooku jàpp na ni lépp jàpp na ni lépp lu mu mënti def rek c' est l' intérêt du pays c' est l' intérêt du Sénégal parti Rewmi nag ñu ngi fii di dajaloo di def suñuy réunion ànd ak suñuy kilifa di doxal li ñu war a doxal situation politique bi aussi li ñuy xaar muy élection locale yi ñi ngi ñi ngi ci jëm te pare nan pour def ci liñ ci war a def incha allah balaa ñu dugg ci élection locale yi dañuy euh, wax ba léegi ci réew mi gis nañ ni ndaje yi bëreetul euh, ba ngeen coaliser ak waa euh, benn Bokk Yaakaar ba léegi ba ngeen duggee ci APR ba léegi maanaam mouvement présidentiel bi ndaje yi bareetul lu ko waral. waaw mais au fait xanaa mooy sànq li nga wax rek xam nga ñun dañuy liggéey te du nu def ay bruit mais ñi ngi réunir ñi ngi daje fi ñu wajar war a daje di waxtaan pas plus que le vendredi passé pas ce vendredi ci. daje nan def une très grande réunion au niveau de la commune avec les jeunes de la commune de Thiès xool ban taxawaay lan war am ak nan la ñuy éla ban plan la ñuy élaborer ci li ñu jëm donc kon ñi ngi daje ñi ngi liggéey mais nag liggéey dafa àndul ak coow liggéey àndul ak wax ju bari. kon parti réew mi doole ba mu amoon est ba léegi mu nga ca wala ndax dafa wàññeeku. non le leadership à Thiès est incontesté loolu kenn du ko kenn du ko werante le part réew mi reste toujours leader. donc loolu moom du lu ñuy waxaat te doole jooju mu ngi fi ba léegi li koy waral mooy gis ngeen waxuma la dara rek mais assemblée générale bi nga xam ne c'était imprévu bi ñu dajale bi ñu daje woon jamono yële cyber ba donc loolu noonu moyen moyen de 24 heures dañ ko def kon bu du doon parti buy dund kon du demee noonu cyber bi fees dell bu ñu wootee ñëw tous les jeunes dañuy ñëw teew activé wu waat ku ci am ngant sax di nga ma woo ni ma ah, man kat dama nekk ci ngant bi lii moo ma téye mais bu ma sañoon dinaa teew ñu pare aussi defal leen compte rendu bi. Euh, ñu ngi jëm ci li nga xamante ni moom mooy élection locale yi dans euh, sept à six mois incha allah bu ci yàlla àndee gis nañu enjeu bi bëri na ci euh, zone est bi naka lañ ko mën a définir. waaw mais ñu ma da nga gis ne enjeu bi am na fi zone est bi. daay bëri de. Ah bref man de candidat yi da am ñoo ci xam daal. li xam nga ni candidat yi bëri na surtout surtout les jeunes. xam nga xam nga ñun dañu nekk dans un parti bien structuré mu doon parti boo xam ne dañu organisé wu du ñu tëb di wax wax joo xam ne xamuñu ko ñun li ñu tënk mooy li ñu li suñu parti di tënk donc kon li nit di wax ci mbedd du intéressé waaw. Ah, gis nañu kenn ci seeni ci seeni membre Aly fay Faye eh, moom dafa wax ne ni dafay eh, dina dina nekk candidat incha allahu rabi kooku xanaa pare ngeen pour soutenir ko. waaw mais xam nga boo bokkee ci kuréelu ndaw ñi nga ni da bokk ci kuréelu ndaw ñi bu fekkee ni respecté nga sa bopp balaa ngaa génn di am lenn looy wax ñi nga bokkal kuréel war nga waxtaan ak ñoom ba pare donc kon lii nga may wax. ci média yi laa ko yëgee ci yow mii laa ko yëgee vraiment mënuma ma sori ci loolu il est libre nag comme man comme keneen de dire ce qu'il mais nag euh, ñun xam na ni waaxu gileem xajul ci pantare te du ma ci sori nag ndax ko yemulu responsable doo ko lebal sa cër. Euh, tey buñ ko désigné woon comme euh, candidat jaune est parewu leen pour jàppale ko. no ñu ma dama ni koo yemulu responsable doo ko lebal sa cër. cela veut dire yaa ko ëpp responsabilité ci parti bi. mais il est et je suis le responsable des jeunes. yow yaay kilifa. à vrai dire à vrai dire donc loolu kay bu dee ci kili bu dee lu ñuy wax ci parti bi moom wax dëgg yàlla nag euh, loolu yàlla moom moo ko def waaw loolu yàlla moo ko def te wax dëgg du lu ñuy glorifier du dara mais aussi dañuy ñaan yàlla doon seen Baay Faal yàlla gën ñoo dooleel. kon tey bu ko euh, euh, euh, kii Idrissa Seck désigné woon pour mu nekk seen candidat fii ci zone est bi parewu leen ngir topp ko. vous savez Idrissa il n'a jamais désigné le Rewmi c'est un parti démocratique boo xam ni li lépp lu ñuy def dañ koy def ak liberté ak transparence ñun suñu parti dañuy dem ci ay primaires ci lu mu mënti li wees laa wax li wees je veux dire dañuy dem ci ay primaires primaires yooyu kun fi ku fi mës a am cër looloo la ko jox. li wees insisté nga ci li wees kon cela veut dire ak mburoog soow mi nu muy demee. non les données vont changer la politique politique contexte la les données vont changer moo tax boo gisee ci li nu jëm du nu ci sori du nu ci wax moo tax ñiy tëb di wax euh, récemment dégg naa benn adjoint au maire je l'ai suivi euh, à la rajo muy wax euh, ay wax yu wax yu bari sax mais xañ Non, c'est l'adjoint au maire euh, de la commune de Thiès, euh, le nommé Cheikh Lo. Euh, vraiment, su ma koy félicité ci leen laa koy félicité ndax nit nit ki ku nekk libre nga pour wax ni diw lii laa lii laa wala lii laa mais dama ñaawlu trop nga bokk ci mbir ànd ci di ko doxal ba fi nga yegg si tey nga jël loolu balayee ko d'un revers de main daal ni dara baaxu ci kon donc yow baaxu ñu lay déglu sax bu nu conscient yi dinañ xam ne yow doo ku baax parce que tak aussi nga bokk ci mbir nekk euh, bokk bureau municipal bokk conseil municipal problème yi nga exposé à la rajo tu n'as jamais eu le courage de l'exposer au moment opportun dans le conseil municipal. yan problème la. non li mu xam nga en résumé il a dit la gestion municipale du gestion bu normal expliqué ci yu bari te loolu. il a sa main lii a sa main liée dans, dedans il est adjoint au maire et il donc nit ki euh, wax wax ji bari na bari na bari na dem xam nga SM bi xamul rôle day xam nga yooyu nit ki bëgg cër bu mu tax ngay def loo xam ne après dañ lay xeeb ndax cër yàlla moo koy joxe te aussi moom it jiituwuñu ci parti bi ñun jiituwuñu ci parti bi. te kon bu doon wax ju bari ak lenn li rek comme ni nga ko waxee sànq dinañ ñu dégg ci yu bare baree baree bari mais ñun dañu respecter hiérarchie respecter cër yàlla nag dafa dogal ki fi nekk tey euh, muy le maire Pape Bassirou Diop gis nga damay faral di wax ni nit lu mu metti metti waxal li nga war a wax te yàlla tax ndax euh, dañuy wax ni maa ngi ciy profité di njokkeel bépp Baye Fall Cheikh Ibrahima maam Cheikh Lamp Baabul Muridina bi àll bi lëndëmee moo xàll yoon mi dama dégg ndeysaan suñu yaay ki ne laam di ko woy mais ñun tey bu ñu ñimee dans la commune ak feneen c'est grâce au maire Pape Bassirou Diop ndax bi mu fit moom rek moo fi nekkoon ah tey ba lii lépp am su dawoon mu gën a metti kon kooku ñun képp ku bokk ci parti Rewmi da nga ko war a njukkeel dello sagal ko tatagal ko gis nañ ni yaa ngi koy jeter ay fleur mais bu ñu déggee ci ñenn ci sa naataango yi dañ no ñoom bu doon seen sago dootul dootuñu ko fi tegaat loolu noo ko gis. non euh, juste rek man duma ma fleur doomu aadama ndax euh, ay nawle la ñun ñëpp gënuma juddu gënuma ko kon donc li may wax dama koy wax ak sama aqullahi taala te li may wax képp ku bokk ci parti Rewmi mën na ko seede Pape Diop moom rek moo nekkoon ci terrain bi bi fi kenn nekkul. il s'est investi de PDS réew mi lu ne il s'est décarcassé pour le parti si nous avons à maintenir le le gap bu ñu mënee maintenir li c'est grace à lui fii ci commune Thiès Est li mu liggéey xam nan ko Idrissa mi nga xam ne tey c'est le président du parti xam na ko kilifa gu fi nekkit xam nga ko kon man dama ne ci ngor ci ngor képp ku bokk ci ñun wareef la ci ñun nga delloo ko njukkal noo gisee liggéeyu uh, ñeneen ñi ci des maanaam zone uh, ouest bi ak zone nord bi ñoom ñëpp réew mi la ñu bokk nan nga mën a maanaam uh, defee bilan seen liggéey. waaw xam nga benn instant tamit damay wax ni ku nekk la nga war a def def nga ko moo xam mu mat moo xam mu bañ a wat la nga war a def def nga ko te ñiy juger c'est la population te ils ont leur bilan à montrer et ils ont leur bilan à défendre donc ñoom seen wareef wàccoo nan ak askan wi mooy dañ leen a dénk lanu jàpp ni ñoom mën nañ ko caa def ndax aussi euh, pouvoir local du état donte démarrement de l'état la mais du état ndax euh, dégg naa sax kenn ci ñoom ci ñuy wax mu ni bi mu amee de mêlées avec le maire Talla Sylla ainsi de suite xam nga. mais ci tur bi rek Aly la. maire yi dañ ko dañ ko seetaan ainsi de suite xam nga. mais xam nga koo wóoluwul doo ko dénk nit bu dee ñi ngay nekkal wóoluwul la mënuñu la dénk te it li am solo ci nit mooy nit ku constant te aussi bokkul ci yar bokkul ci teggin bokkul sax ci idéologie parti li vraiment je lance en appel au parti je lance un appel au président Idrissa ndax nit mënoo bokk ci parti parti bi am ay cër am ay bàncaax am ay yoo xam ni moom mooy ay piliers yoo xam ne moom mooy pilier parti bi yow sa intérêt crypto personnel tax euh, ngay wax wax joo xam ni yow leer nañ la li ngay wax àndul sax ak cohérence politique ndax tu ne peux pas être dans un parti di soutenir quelqu'un quelqu'un qui est dans un mouvement de soutien un mouvement de soutien day ñëw soutenir un parti. Aly Nguer moom moom wax jooju. je pour dire que ni même déggaat naa le nommé adjoint au maire bi ma lay wax sànq. mu ni il est en train de xam nga di mi ngi waxtaan ak Ablaye Dieye mi ngi waxtaan ak ñeneen ak ñeneen mais dama gis dans les vidéos Euh, ci benn panel image boo xam ni vraiment c'est rabaissant pour lui ndax je l'ai vu de manifestation bu ñu invité Ablaye ab euh, Ablaye Dieye dem ñu tegal ko fauteuil royal defal ko euh, dara bu weextaal moom ñu tegal ko chaise à côté donc am na yoo xam ne nit ki soo ko dee def sax yow yaa ngi humilier sa bopp di humilier fi nga bokk parce que ci parti politique nga bokk non attends ñi ma je sais ce nit da ngay gëm sa bopp gëm li nga nekk cër yàlla moo koy joxe ku ñun xam nañ ni mouvement de soutien parti moo koy da ngay ñëw soutenir parti Ablaye Dieye dafa bokk ci mouvance présidentielle di soutenir euh, le président Macky Sall ñun ñu bokk ci parti nekk ci biir mouvance bi donc kon du cër ndax bu fekkee ni cër lii c'est un adjoint au maire kon au plan administratif moom mooy kilifaam mais wàcc sa bopp ak doye di weesuwul nga dem ànd ak moom ci manifestation moom ñu joxal ko jox ko fauteuil royal yow ñu teg la ci ab chaise yow nga ni kooku yow parti bi dina la xalaata investir ci dara yow yaa ngi nax sa bopp yaa ngi fooy sam xel. yaakaaroon ni mburoog soow mi la ñu gën a la ñu bëgg mu gën a saf. non mburoog soow mi ñi ko war a safal ñu ngi ci les responsables ñi ngi daje fan war a daje di waxtaan je dis bien les responsables ñi ngi daje fan war a daje di waxtaan. fañ ñu war a woo ñu ñu fay woo di waxtaan mais da dafa am waxtaanu pénc ak waxtaanu biir néeg waxtaanu pénc ci pénc mi rek lañ ko mën a waxee mais waxtaanu biir néeg kilifa yi rek ñoo fay daje waxtaane fa moom mënul yeggee foofu kon bu roog soow mi la koy safal ñoom jógewuñ ci ñoom waaw li jëm ci candidature Talla Sylla ñoom eh, ñenn ñi nee nañ ñoom la moom ñoom moom la ñuy investir ah. moo moom lañu ñu bëgg mu nekkat candidat yow en tant que ku bokk ci parti réew mi noo ko gisee waaw mais xam nga Talla moom c'est mon grand frère sama mag la ndax euh, mook sama frère Pape Demba de suñu kilifa ñun ñëpp benn lan euh, wax dëgg yàlla bu yéene dee am ku ko yéene la waaw moom xam na ni nit ku ko yéene la euh, gis na loolu ci man dégg na loolu ci man xam na loolu ci man mais li ma la wax sànq rek man dama di kilifa du ci nit ñi di wax rek ci laa mën a sukkandiku wala dara wala lu nit ñi di kalaame ci biti dama bokk ci kuréel kuréel bi am ay bàncax am ay taxawaay kuréel booba la ñu décidé boobaa ca la ñuy ànd mais candidature Talla moom dama koy ñaanal yàlla yàlla gën ko cee dooleel bu fekkee ni moom wax dëgg yàlla mais man moom euh, li ma xam te man koo wax mooy ci parti bi ma bokk kon donc mënuma ci prononcé wu lenn di ci euh, di ci joxe avis boo xam ne nii sa xam c'est pour ou contre. mais enjeu bi metti na fii de candidat yi euh, bëri nañ de naka ngeen koy lijjanteel. non enjeu bi méttiwul de ñu ma enjeu bi méttiwul de mënul métti parce que bu boobaa ñi war a daje ak kilifa yi la ñu war a waxtaane nan ko waxtaane fan ko war a waxtaane nan ko waxtaane incha allah rabbi nee naa la ñun suñu parti dañu doon parti bu organisé ku mu neex na nga yor sa làmmiñ di wër ci rajo ak fu la neex di wax mais li nu war a def incha allah rabbi bu yegsee ak ñun ko war a defal di dinañ ko def ak nan ko war a defee incha allah. seen euh, ngi fi. mu ngi Thiès Dakar Sénégal wala. <laughs> Idrissa waaw mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi Sénégal mi ngi Dakar mi ngi Dakar te aussi vraiment ñu ngi koy njukkal aussi di gis taxawaayam macha allah ndax euh, nit ñi gë gëjoon nañoo dégg au conseil euh, économique et social. Euh, yàlla dogal na ni ba mu fa nekkee ba léegi nit ñi ñu ngi koy dégg ñi nga xam liggéey bi ñi nga xam taxawaay bi vraiment loolu rek la ñuy doyee kilifa loolu la ñuy doyee njiit te it allah ñu ngi bàyyi xel ci bëgg gi mu bëgg Sénégal ndax wax dëgg yàlla nit ku gëm boppam la ku bëgg Sénégal mais aussi musul xool intérêt personnel am toujours li muy xool mooy njëriñu Sénégal ak intérêt Sénégal. mais depuis Mburok Sow ma ba léegi gisuñu ko Thiès lu tax. non ne yow gisoo ko Thiès mais ñi ko war a gis ñu ngi koy gis de hmm. waaw. kon day ñëw di làkkatu. non làqatu ku def dara moom mooy ku ku ragal mooy làqatu. <laughs> ñu nekk ci média bi te boobaak léegi gisuñu ko pare nga naan ñu mu ngi ñëw. <laughs> non ñu ma yéen xam nga yéen fi fi mu toll nii li xam naa li ngeen yàkkamti mooy Idrissa Dane asalaamaaleykum mais loolu bientôt incha allah bientôt incha allah ndax moom amul lu dul Thiès te xam naa ni dina waxtaanaat ak Thiès waay incha allah rabbi. sa dernier mot lan la. waa mais vraiment di la remercier di remercier waa internet waa euh, Thiès 24 yëpp. di leen euh, jaajëfal ci liggéey bu rafet bi di wax ne wax dëgg yàlla ñu ngi leen di suivre à tout moment euh, di rafetlu nag taxawaay bi ak engagement bi ngeen am ndax ay ndaw ngeen comme ñun mais ci li ngeen nekk yéen a ngi ci wane seen bopp mais aussi vraiment di profito à travers vous di euh, jaalaat le frère Dame Dieng perte bi mu am ndax di leen ko jaal yeen tamit ndax c'est le monde du média qui est en deuil di leen ko jaalaat di ñaan yàlla yàlla na nu mottale seen ndaw aljana bi jaay Seydina Mohamed Euh, vraiment di ci wax dëgg yàlla di ko métitluwaat nag mais nag borom bi moo yor ndogalam te saa bu ko neexee rek la koy teg di leen di gën a wax daam massa wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may xolu muñ ak njabooti ñi dem bi jaay Seydina Mohamed di remercier ñëpp di wax ni daal euh, ñun waa parti bi ñu ngi liggéey ñu ngi def li ñu war a def ñun waa parti bi ñu ngi am taxawaay ginnaaw suñuy kilifa ginnaaw suñuy njiit di xaar nag bala moment venu ñu def nan daan def incha allah rabbi jël une victoire éclatante jox ko euh, le candidat yi fi nekk jox ko aussi la coalition Mburok Sow comme comme vous Euh, mbokk internet yi ñoo ko déggandoo xam nañ ni fa la ñu woloon a njëkke mais xel moom mooy fattu di jaale suñu confrères yi nga xamante ni ci waar waa la ñu daanoo dañu demoon ci seen liggéey ba yàlla dogal li mu dogal di ñaan yàlla yàlla na suuf oyof ci seen kaw di jaalewaat waa leeral TV ak képp koo xamante ni taskatu xibaar nga euh, animateur nga animatrice nga wala euh, personne de média nga rek ñu ngi leen di ñu la koy jaal di leen wax yàlla na ñu àggale seen ndaw ci àjjanay firdawsi yàlla bu ñu rëccu dara luñ doon def ci kaw suuf ah, di ñaan yàlla yàlla mi dara tawul yal na leen yàlla ah, mottali fi ñu féete woon seen waajur yi yal na leen fa yàlla féetale di leen wax ni ñu ngi toog feggoo woon ak ki nga xam ne moom mooy Abdou Aziz Diakhaté di président conseil communal eh, responsable des jeunes bu réew mi nekk fii ci Thiès Est li muy waxtaan ak ñun nag dégg ñoo ko déggandoo xëy na du ñàkk fii lay fan yu néew balaa ñuy dugg ci campagne électorale bi eh, dinañu gis seen leader boog comme mburoog bi booba ak léegi daal suukaraguñ ko xëy na nañ ko suukar say Thiès di leen joxaat digg daje ba beneen incha